laver le linge sale en famille po ñu def ko potum. Euh, biir ñu footu footu xaw ma lan. potum biir potum biir nekk potum biir nekk. te je crois que ni bu fekkee ni dañu am ay dissensions mooy li ma doon wax rek à l'entame de l'émission. mais Aliou des fois tamit est-ce que du dañ koy bëgg fóot ci biir néeg bi mais dañu leen permettre ñu fóot ko ci biir néeg bi euh, euh, gis nga moo tax ñu koy génnee feneen mais boo ko génnee feneen aussi di nga ban njëriñ la am à part écorné combien de marches aujourd'hui ont Euh, oui, n'ont pas été autorisés. Mais combien ont été euh, euh aussi Il faut poser mais, des euh, questions. alors man man dama ne dama ne nee ne benn affaire la. Mhm. man ci wàllu marche yi man du pôle man marche mooy avancé loo démocratie. Mhm. du may interdiction marche. mooy avancer loo démocratie du autorisation marche non plus mooy avancer loo démocratie je crois que liy avancer loo démocratie mooy ci ay waxtaan ci ay ay ay ay ay ay ay réflexion ci ay jàngal ci ay éducation surtout les éducations de masse comme ñoom parti socialiste ni ñu daan def mënuñu l'année dure cinquante deux semaines moi je suis man ci ci ci marche laa xam ci démocratie loolu la xam mhm. mais dama ne dans un pays on a cinquante deux semaines mënuñu marche cinquante deux fois parce que marche dafa légal parce que marche constitution da ko wax on a autre chose à faire dans un pays aussi même ceux qui sont dans l'opposition parce que dañu war a toog di jàng di réfléchir sur des solutions di wax ak population yi pour seet ëllëg nan la ñu mën a wuutoo président bi au travers des cartes man pour man loolu la ñuy wax war a wax population la moitié des gens qui parlent qui traitent Macky Sall de dictateur qui traitent le gouvernement de de de de, de gens mauvais ñoom ci seen bopp la moitié xamuñu comment un pays xamuñu comment fonctionne euh, euh, comme euh, comment comment comment on gère un pays xamuñu lan mooy budget xamuñu lan mooy finance publique xamuñu lan mooy assemblée nationale degré ñu ne leen Macky Sall dafa bon parce que Macky Sall dafa tëj diw alors que normalement ok mun na ci influencer mais dans son régime dans suñu régime yi du président mooy tëj nit hmm. mun na ci influencer mais ce n'est pas vrai Thierno Alassane Sall kenn du ko tëj billaahi Thierno Alassane kenn du ko tëj parce que dafa un man gaw ma ni juge dem danañ ko tëj wala Abdourahmane Diouf est-ce que ñooñu boo gisee ma leen di cité xam nga lu tax parce que ñooñu defuñu est-ce que ñooñu euh, wax leen ma rek ni ñooñu duñu ay opposant wala nag xanaa ay ay ay kii pouvoir bi lañu ay allié lañu allié secret pouvoir bi ñooñu est-ce que ay opposant lañu juge dem dafa démissionné kenn daaxu dafa démissionné parce que système bi ni muy doxee neexu ko mu ne man tegg naa sama tànk mënatuma supporter li damay dem opposé wu damay def politique kon kooku kenn mënul ne merci kon kooku juge boobu kon ñu jubóo ngeen ni merci. mais mais kooku mais kooku kenn kenn daaxu ko. ko kenn wax ko ni bu def bu ko ko moom moom moo d'accord mu dem mu ne àndul ak mbir mi ni muy demee. kooku kenn xam kenn mënul a ne kooku du opposant xam ngeen kooku kooku kon opposant la. Mm. mais kooku est-ce que wax na fi yenn wax yoo xam ne mën na déstabiliser la sta le le le le le le pays. parce que dëkk bi aussi c'est une question de majorité ak nu mu mënti demee man gëw ma ni lépp li Macky Sall def baax na. Mm. waaye aussi. am na loo xam ne nañ ko waxante dëgg te yàlla tax suñu dëkk yi Macky Sall bu demee di lijjanti ay mbir pour réew mi ak nu mu mënti demee man d'accorduma ñu dem di ko yuuxu te yàlla xam na ni bi koy Souleymane Jules Diop di def. Mhm. Euh, il est décédé mais peut-être archives yi ñu ngi fi. Mhm. Mame Less Camara yàlla na yàlla yërëm loolu jóge naa Sénégal ñëw fi yuuxu ko ci Océan FM ne d'accorduma li ñuy def euh, ab li Souleymane Jules Diop def ñoom Abdoulaye Wade. parce que Abdoulaye Wade est notre président de la République dafa am une majorité de sénégalais war nañ di leen sóoraale di bàyyi xel ni. ñun kese même bu fekkee ne d'accord ñu am na ñoo xam ne dañu ànd ak ñoom te ils sont majoritaires parce que président de la République dañ ko fal ba 2 avril 2024. donc respect ak ak ci xam nga lii yëpp xam lu muy wane. mooy en général ñun mooy mooy mooy ñun avancé guñu quoi ñun dañu ñun dañu tardé. xam nga ñu tardé parce que même système bi même façon yi faire bi opposition euh, bu fekkee ne état bi mi ngi doxal même système bi moo fi nekk ba tey opposition bi même façon lay doxalee ba tey sensé wuñu ba tey parce que même attitude bi la ci Ablaye Wade on faisait la même chose Abdou Diouf on lui euh, faisait la même chose te boo sàgganee bu ñu xeexul ba yii yii détails yi daj fii ci réew mi après Assane Diouf sera président de la République on lui fera exactement la même chose. Absolument. parce que tout simplement du ñu d' accord ak moom ci benn fànn. man si mu ne non boo nekkee président yow dinañ yuuxu xam nga dinañ yuuxu. non d' accord ma si dina xam nga non xam nga. du def li Macky Sall def. non xam nga lu tax non déedéet ak lu mu mënti demee Assane. ak lu mu mënti demee Assane Assane Assane. exemple bi Assane mënoo am 100 pour cent. non non Assane déglu ma rek xam fa laay waxee. du question loolu. xool may la tuuti rek. waaw exemple boobu moom. Hmm. yóbbu ko feneen. mais bu ko jëmale ci assemblée parce que benn xam nga lu tax xool mënoon mënoon man sama grand frère nga dafa am lu ma la wax léegi Assane non non non non defal naa defal naa defal naa defal naa grand bugguma bugguma la dagg suma mm-hmm. grand frère nga mm-hmm. mais dama lay wax benn baat yow yaa wax yaa jubbanti sa bopp mm-hmm. parce que juste dem juste dem Assane xam naa li may wax bu fi fekkoon système boo xamante nii lépp ci yoon lay jaar du démissionner bay opposé yee nga sa bopp Assane lu leer la man waxuma dara. man li may wax leer na. voilà mais exemple bi nga jox noonu moom. non mënoon naa wax Serigne Saliou. mënoon naa wax Serigne Saliou non mënoon naa wax Serigne Saliou ou honorable député. Ah, ah, ah. benn la rek wala oh, ay wax na Aliou impersonnel. voilà jox la honorable jël ma jël ma honorable député mais xam nga lu tax. non xam nga lu tax ma wax loolu. Mm-hmm. parce que sans doute pour xaw la takkini wala tuuti xam nga lu tax ma koy def. Mm. parce que dama ne rek même keneen bu fi nekkoon laa bëgg a wax. c'est ça keneen bu fi nekkoon nekk président de la république yàlla sax amul kii majorité. keneen kooku yàlla na nekk Bougane Gueye Dany wala mu nekk Ousmane Sonko ñu xool. ndax dëkk bi ni mu demee dina demee wala mu nekk Thierno Alassane Sall. xoolal bu demee nii mu demee. Amadou Ba lay doon jamais mais man ku ñàkk sant jamais Ba yaawu jaar émission bi bi mu commencé rek. yow kuy sa candidat ñu ne Ousmane Sonko may leen non. kuy sa candidat Ousmane Sonko Assane kuy sa candidat nañu wax yaawu jaaw vingt appel vingt appels amul kenn ku ne Amadou Ba kuy sa candidat man man waxuma ci waxu Sénégal mooy sama candidat non non très bien yooyu yooyu dafa yomb man Sénégal mooy sama euh, loolu dafa yomb trop ñu bàyyi Aliou mu yeggali am fu mu faam am nga foo faam bàyyi leen Aliou mu yeggali Amadou Ba Sénégal la dëkk Allez-y Aliou. décidément j'ai pas de bol ah, ah. allez-y Aliou. mais ki ma njëkkoon xalaat ne dina ma coupé mooy sëñ Saliou. non man maa lay man wax naa la ko man. xoolal Baye Fall la. waaw wallaay. ndeysaan ñu toogee rek sama ah. grand frère nga ah. li nga wax sànq bi nga koy wax ah. dama ko dëggal mhm. xolal man duma la mësa bañ ci àdduna ak noo mënti mel parce que fi ngay dëngee mhm. bon fa fa laa war a taxaw gën laa bëgg pour jubbanti la. waaw kay mhm. d'accord ngi dégg li ma la parce que on a tous les limites foofu la ñu nag fi mu toll nii. yow dañ laa war a jubbanti. parce que bërki démb ak mhm. bërkaati démb. waaw Alioune ak Alioune Sow tey. Sénégal yëpp ngi koy jooy. online xam nga lu tax ah. allez-y est-ce <laughs> bi yëpp Sénégal di ko jooy. Aliou Sow dem ak bu tey. Mhm. parce que nit ñi ñooy évoluer ñoom nga leen di suivre ci seen évolution di leen corriger di teg say mbir yow say façon faire pour mën a changer mbir yi parce que à un moment donné dootoo mënati yaakaar ci ñoom. d'accord mhm. Aliou. Euh, euh, Assane. revenons au débat maintenant. Assane dem ci euh, un an ci ginnaaw bi ma daan wax ni ndeysaan dama doon wax ni Yewwi Askan Wi parenthèse la lii ndajaloo hypocrite la. te dafay tas te baaxul. ñu ne waa ji dafa changé waa ji Macky Sall da ko jël. loolu maa ma dama lay tekkil non dama lay dimbali. ñu ñu ñëwaat ci ci débat bi. ñëpp wax na xoolal adduna bi yëpp xam nañ ne ci ba. ba ma yegg man xoolal ci ñi ñu consulté wu ci askan bi bi ñu génnee premier jour laa taxaw croisement Sam Guédiawaye ma ne yéen ñii di woote yeewi askan bi. dem leen génn